ciy sant yàlla rek xam nga xew-xew bi nga xam ne ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët ci liggéey bi Touba ca kanam sumboon ci ndigalal Serigne Mountakha ñu di ko ñaanal mu yàgg fi ci te ànd ci la ñaari jàmbaar di ay ndaw yoo xam ne liggéey bi ñoroon na leen jeex ci seen xol naka jekk nag tàmbale wuñ ko ci Touba ca kanam ñoom dafa mel ne seen dund yëpp ci liggéeyal Sëñ Touba rek lañ ko doon def ba sunu borom moom leen démb ci loo xam ne ñëpp jàpp nañu nit te ko loolu sunu boroom dogal la ndax ñu matal la ñuy rafet njort nag ci li sëriñ Muntaxa wax bi fi kilifa yi demee sëriñ Abibu ak sëriñ Abdoulaat Abibu euh, mu ne ñooñ de dañoo shahid loolu yaakaar naa ne murit bu nekk boo sañoon dinga am mujj gu rafet te lii bokk na ci mujj gu rafet. boo delluwaatee ci alxuraan li nga xamal ne ñi nga xam ne dañoo jaay yàlla seen bakkan seenu pay moo ëllëg mooy àjjana te xale yi dañoo jaay yàlla seen bakkan. mooy xale bu toll ci sa diggu doole walanteeru di liggéey ci liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moo waxoon ne inna lasina saaraho fi xidmati falahumu wa wasu jannati ñi nga xam ne dañuy njëkkante suñu dëggee sama liggéey daw di ci jëm suñu faatoo àjjana mooy seen kër kon xale yi mën nañoo jàpp ne dañoo jihaat dañoo jihaat dañoo doon jihaat ba seen bakkan yem ci alhamdulilahi rabbil ne nag bi nga xamee ne dogalab yàlla bi mu wàccee ci ñoom Touba ci kanam gépp nañ ne yàlla wàcc na dogalam ci ñoom ñu àndandoo dem ci sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha yëgal ko loolu moom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi kaddu goom yëkkati rek doy na mooy ñii dañoo saxiit dañoo dee ci xarab toolu yàlla bi ba noppi ñaanal leen ñaanu xalifa général des mourides bari na ñoo xam ne buñ faatu woon bëgg nañ Serigne Touba ñaanal leen te xale yooyu am nañ ñaanu xalifa général des mourides ndax Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasulu daa wax si benn xasaayit daan na innaka li kulli man lillahi bi xayra amrahi wa ma araxta baynata lillahi bi xayra mindeef ab jullit de bu bu fekkee ne dafa bàyyi ko sama coobare man man Serigne Touba man maa koy jël samay loxo jébbal ko ki nga xam ne mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon taalibe Serigne Touba yi nga xam ne dañoo bàyyi ko ci liggéey Serigne Touba bi jàpp nañ ne rafet nañ yottu ni ko Cheikh Amadou Mountakha waxee rek si jihaat lañ demee ndax jihaat mooy jël sa lépp jébbal ko kenn rek koo xam ne dafa yaakaaroon yàlla si kaw sunna Muhammad sallallahu taala wa sallam yàlla na suñu borom taxaw taxaw bu mucc ayib ndax Serigne Touba kat xaadim rasulullahi sallallahu taala wa sallam دا وخون ني وانك البينه وما عرفت لله بخير من ديف وتختنا من صدرهم وكل من لا اله الا هو اب جام دي بوديل سما ليب جيبل مكو من داما جال سما ليب جوخ كون آه، من نيو رافت نيوف سي تخواي بي دي رافت لي نيوف باخ باخ ني كو شيخ مولا من تخا واخا كون نيو ني من نيو رافت نيوف ني سيرين توبا نامو لين سيني لوخو جيبل لين كي خن موي سيني برام سبحانه وتعالى matukay yi ñu waroon jël ci walu sécurité xam ngeen na jël ndax foofu du nit moo koy gas defe image yi ñëpp nga gis poquelin bi kon dañuy masawu mbooleem ñi nga xam ne ñooy waa Touba ca kanam murit yëpp jullit yëpp eh, te it mën nañu wax it mën nañ ko jaal sax sunu mbokk yi nga xam ne ñooñu doon jàppale ci liggéey bi muy waa Ageroute muy waa ONAS muy commune bu Touba ndax fépp fu ñu dem ba war a dagg tali bi rek waa Ageroute ñooy ñëw daggal ñu ko poquelin bi ñëw gas ñu continuer liggéey bi kon jàpp naa ne ñoo ñëpp mën nañ leen koo jaal Touba ca nag ni mu war a taxawee rek ñoom ñëpp lañuy ñuy xaar nii bu ñëwee ñu taxaw leen li ci war yëpp Touba ca kanam def ko tey ñaan sunu borom rek comme ni ko sëñ bi waxee xaral leen ci àjjana yu gën a kawe. nit faatu na ci anam wu nekk yaakaar naa ne kon tey bu fekkee ne dañuy liggéey liggéey boo xam ne nit ñi dañoo jël seen ñaq seen jëm seen lépp jox ko Sëriñ Bamba bu leen yàlla moomee ci barab boobu loolu ab soññee la war a doon ci ñun ñëpp kon euh, dañuy ñaan rek tey refer njort ci ndaw ñooñu nga xamne wax na leen seen ndaw yëpp ci Serigne Touba lañ ko def. bari na xalé yo xamne ne nañ ci lo xamanteni ni bii doonut lu yalla gërem bu dé dik rek dara mënu ko fa waye nak alhamdullilah rabbil alamin bi nga xamne ñoom dañoo dé ci tolu yalla dé ci lo xamne lu yalla gërem la loolu mo tax Touba ci kanam yëpp andando ñew mbollem jabatu maam Cheikh Rahma Fall seuti serigne Touba yi ñepp andando ñew ci ci denc bi danañ andando wa dem ci kër ya jël en charge lepp lo xamne ne luñ ca war def la Touba ci kanam def ko waaye di ko masawu ñëpp nag di ñaan yàlla yal na leen yàlla xare àjjana Touba ci kanam dafa yëkkati lim bu ab lim donte bakkan kenn mënu jot wax seen wayjur na ko sarax si bu leen ci def dara nañ ko bàyyi ak Touba ci kanam ki ci ki ci gaañu ñu jël ko en charge ku daan dimbale jaami yàlla yi bu leen dara jotu bu fekkee ne dogal ñëw na ci yow kenn du ñàkk a taxawaay xanaa di gën a sensibiliser nit ñi war leen ne bi yàlla bu wàcc ci ñoom la te bu kenn mënu koo fànq ala ñu ngi ñaan nag dogal boobu yàlla bu ko yàlla wàcce waat ci kanam waaye di encouragé waat nit yëpp leen defaral sëñ Touba daal lu mu fekk nit ki daf ko war a jaral ndax nit dañuy faral di ne bu doon badar la dañuy jeex te lii la du badar laajut bakkan ñàq yi la laaj kon nañu gën a engagé te defal sëñ Touba dëkk bi ni war a mel mel ni te xam ne lii dogal la bu wàcc yàlla na ko yàlla yemale fii ci barke Cheikh Khadim